gan gi ñu koy dalal ki yor kàddu CNG de lutte di Adama Bopp ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. gannaaw bañ la dalalee wax ci euh, li nga xam ne mooy gala euh, bi amoon le 11 avril euh, gi ñu wees gi nga xam ne promoteur Serigne du Niang moo ko amaloon ñu nemmeeku ci ay jaamaarloo yu métti yi nga xam ne amoon na tamit ay yàq-yàqu ndax xayma ngeen li yàqu woon ci gala gi amoon. xeex yi amoon. ñi ngi ci nekk ñi ngi ci nekk ñu ngi koy ñi ngi koy ñi koy ñi ngi xaar rapport bi. Mhm. waaye ñi ngi ci. démb ministre euh, de de des sports Matar Ba dalal leen euh, bokkoon na ci waxtaan yi li nga xam ne moo fa xewoon euh, ndax am na tamit lu fa génn comme décision. ministre bi dalal nañu démb pour wax pour wax nañu ni moom tamit yëg na li xew ñaawlu na ko xam na ñun taxawaay biñ ci taxaw ak liñ ci jot a def mu ni ànd na ci ñun te dinañu ci gunge ba fu ñu yem. Euh, léegi am na ay mbër yoo xam ne teg nañ leen daan euh, teg nañ leen daan euh, benn at benn at avec sursis ak benn at ferme juróomi mbër lañu ba pare seen desetu xaalis CNG teg na ci loxo rax ci dolli CNG. CNG dina CNG bu amee rapport yëpp dina dina def euh, dina porter plainte ci procureur de la République pour yàq-yàq yi fa am ci biir arène nationale mhm. euh, violence du lu bees euh, ci euh, arène bi tey jii gis nañ ne ñoo ngi xaar benn affiche bu bu mag muy Modou Lo Ama gis nañu tamit li xew ci seen face à face gi ñu fas yéene woon amal te mujjewul am. ndax jël ngeen ay euh, mesures ay matuwaay yi nga xam ne euh, li ni mel euh, di ngeen ko mën a xaar wala sax di ngeen ko mën a dàq ci boobule combat. waaw loolu def nañ ko ndaxte wolof Njaay dafay wax ni wax ba mu defaru moo noppi ba mu yàqu. Mhm. moo tax convoqué woon nañu Luc Nicolaï mu ànd ak Baye Diagne ñu ñëw wuy suñu bi ñu ñëwee. woon nañ ko ni ko moom loolu mu def amuloon sañ-sañ def ko ndaxte euh, CNG bi fi nekkoon génne woon na benn bataaxal boo xam ne dafa ni euh, promoteur boo xam ne ne da nga fas yéene tëgg làmb te ñëwuloo ko régulariser CNG waruloo def euh, ay jàkkaarloo loolu bi mu amee moom nee na moom rëccu li am te fasatu ko yéen a def te mi ngi koy tuub Euh, rax ci doole aussi nee na combat bi na ko régulariser te tàllal na ci tàllal na ñu ci loxo pour que ñu gunge ko ba yàlla def euh, combat bi am ci jàmm. Mhm. ñu daal ci loolu lañu tàggalu ko ak moom. mbas mi tax na ba làmb ji euh, toog nañu diir amul tey ñu daal di tàmbaliwaat li nga xam ne moom mooy làmb gi yéen ñi CNG seen taxawaay gannaaw nag ba ñu jëlaate wala sax tàmbaliwaat activité yi. waaw mais suñu taxawaay ñun mosul soppi xam nga dañu nekk ci jamonoy mbas. Mm-hmm. toog nañu at euh, kenn deful dara. yàlla def na tey uh, kilifa gi nangu na ñu dolli ñu dolliwaat uh, di di di waaye nag bu ñu fàtte ni nag dañu nekk ci jamonoy mbas dafa am taxawaay bu mu bu mm-hmm. mooy raxasu takk mask ak dandante bi bon xam nga ni nag euh, loolu moom ñun duñu tàyyi di ko wax. di ñu tay di ko digle waaye nag bu dara desul lu dul ñu dem ca biir stade ba nit ñi dinañu yenn saa yi euh, tax dinañu toogee noo xamee ni du noonu. Mhm. waaye comme que ñun fàttali rek moo ñu war ñun loolu duñ ko du du du duñ ko mos a bàyyi te diñu dinañu gën a ñaax microcentral bi muy fàttaliku ni nit ñi ni bu ñu fàtte ni dañu nekk ci jamonoy bas te dafa laaj ku ci nekk takk masque. ak dandante bi. Mhm. loolu moom CNG du ko mos a bàyyi. ci saison bi sax euh, bi nga xam ne door na le 4 avril gi ñu wees euh, diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu seen gis nañu euh, la fa rousser muy décision arbitrale gi ñu jox Lac de Guiers ci kaw Eumeu seen li ni mel nag amateurs yi dafa mel ni doyu leen tey jii lan la ci texte yi wax. waaw mais texte li mu wax loolu la def dañu ni que combat non non nan nga ko mën a gagné mooy nga daan mbër mi wala ngeen euh, ngeen témboo ndam demul dem digul wala euh, kenn ki ñu jox ko ndam ci kaw ay euh, mu mu mu gën a néewle niñ ko liñ ko avertir te loolu moo am. loolu nag moom du loo xamee ni lu ñu mën a soppi la léegi mais. règlement la ñu appliqué arbitre bi appliqué wul dara lu dul règlement. wax nga ko sax soppi googu ñi ñu bëri nee nañu euh, dafa jot sax ñu xoolaat avertissement yooyu la xoolaat euh, réglement bi euh, sànq nga ne mënuñoo soppi réglement ci mandat en cours wala. non non c'est-à-dire saison bi bu ubbee. Mhm. ba ba joŋante ba joŋante yi door. li nga xamee ni mooy règlement bi kenn du ko soppi. ce règlement bi mënuñu ko soppi lu dul bu fekkee ni saison bi teg na. Mhm. ba ñu def assemblée générale ba ñu waxtaan. Euh, ñi nga xam ne ñoo ko seq gis ni fii am na sooxe bu fi am war nañ ko mën joyante bu boobaa xel mën na ko nangu mais léegi fi ñu toll nii eh, soppi mënu fi am. Mhm. tekki nañu ci xaalis euh, wala sax jël nañ ci cachet ñi nga xam ne ñoom ñooy mbër yi Lac de Guiers 2 euh, ak kii euh, di Eumeu Sène ndax amul yeneen sanction yi nga xam ne ñoom ñii di mbër yi war nañ ko mën a am lu dul ñu jël ci seen xaalis. ah sanction bi nag bu bu fekkee ne nag ñoom dañu tekki seen xaalis ba pare nar ci teg leneen ah bu boobaa nag dina metti bo bo bo ñu ba ñu xaalis bi jox leen yeneen sanction <laughs> ah non loolu aussi itam du dara lu dul application règlement. Mm. loolu ñu leen teg du dara lu dul règlement ñoom xamoon nañu ne bu ñu defee lii li moo leen di dal loolu moom xam nañ ko. Euh, du dara lu dul application règlement. Mhm. Euh, dëgg la application règlement la waaye teewul saabu ci mbër euh, loolu dalee ci ndoddom du tee dinañ ko kaas fu nekk te ji xaalis googu googulee nga xam ne dañ koy tekk ci seen cachet fan lañ koy dugal fan la ko CNG di dugal. mais xaalis boobu ci ay charge yu CNG lay dugg ba pare ndax ci doole bu ñu fàtte ni ñun indi nañu ay àllarba léegi jël nañu àllarba bu bu ci àllarba yi ñu ci tànn ay àllarba yoo xam ne ni dañuy dañuy ta dañuy woo dañuy tëgg làmb mm-hmm. mën na nekk bëre dóor mën na nekk bëre bëre boo xam ne àndul dóor loolu yëpp CNG dafa bokk ci euh, tegtal yu ko ministre bi jox parce que euh, dañu war a dundalaat làmb te xam nga ni ñu ñi ngi jóge ci at boo xam ne ni kenn bëriwul te am na ñu bari ñoo xam ne ni jàppuñu ci dara ci làmb rek la ñu yaakaar te ku ci nekk am nga war nga am dara loo mos yóbbu sa kër looloo tax CNG ni moom dina ci dugal loxoom loolu nag ci xaalis yu mel noonu dinañ ci jël pour pour pour pour tëgg làmb yu mel noonu. Mhm. mercredi de l'arène ngeen ko duppee ndax dafa am benn budget sax euh, bu bu ngeen teg euh, ngir mercredi de l'arène yooyu. ah amuñu am <laughs> ku am mooy am budget ñun amaguñu budget amaguñu budget dañuy dem dañuy def daal bu ñu jàppee ni war nañu tëgg nii seet li ñu am ak eh, li ko war a mott ñu dem dox ko oh, ku mel ni Maysa Ndiaye eh, nga xam ne moom moo yore eh, astafa ku mel nga xam ne moom moo yore affaire marketing bi moom ñu doxal wala kenn ci bureau bi bu fekkee ne xam na benn euh, industriel wala benn société boo xam ne mën ñu ci ñoo jàpp ñu jàpp ci bon bi passé Euh, bon bëgguma def publicité mais mm. amoon ñu benn société boo xam ne moom mooy indi affaire affaire courant moom moo ci jàppoon ba loolu mën a am kon daal mbër yëpp ngeen di tëggal ñu ndaw ñi euh, ba ci ñi kaw. ah non ñu non non ñun nag euh, dañu fas yéene nag euh, dem fi mu ëppee mooy ci ndaw ñi. nga xam ne ni waa waa fi mu ëppee. Mm-hmm. ñun fi mu ëppee fi nga xamee ni ñoom ñoo gën a toog ñoom ñoo amul chance bu bëri ci ñooñu nag ñun la ñu teg suñu bët. kon VIP daal da ngeen leen di bàyyeeg promoteur yi. waaw waaw ñooñu ñoom bàyyi nañ leen promoteur yi xale yu ndaw yi daal yi nga xam ne daal ñoom daal ñoom yenn saa ay saison mën na am ba jeex te kenn du ci am chance su bëri ñooñu nag la ñu bëgg jox seen chance. <laughs> monsieur Bob tey jii euh, Sénégal dana teewe ca geo yi ak euh, Adama Diatta tey lan mooy ay chance am euh, jamono ji nga xam ne lutte olympique fii ci Sénégal gis nañ ne néew leen loolu ci kanamu lutte traditionnelle ak lutte avec frappe. waa xam nga nag euh, lutte euh, lutte olympique nag dafay euh, dafay xeetu bëre boo xamee ni barewul ñu am na ñu ko fi mën. Mhm. waaye amul championnat xam nga nag lépp loo xam ne nag amul championnat kenn du ko mën xayma. mais teewul am ngeen ay champion. waaw mais teewlu am nañu ay champion te looloo tax aussi ci lettre de mission bi ñu ministre bi jox nee na nañu fexe soqali wàllu xeetu làmb boobu. Mhm. xotti bëre boobu. de loolu moo tax ni sax. am nañu benn vice présidente Isabelle Sambou nga xam ne loolu moom moom moom moom daf ko daan def. Mm-hmm. moom lañ ko dénk. léegi loolu tax na écurie ak école de lutte yi ñaan nañ leen ku ci nekk ñu jox ñu ay xale yu ndaw yoo xamee ni ñoom dinañ leen jàngal dinañ leen tàggat ci xeetu façon bëre boobu. Mm-hmm. nga xamee ni lu bon bon ñu def benn championnat boo xamee ni dina am ñu ko def. <laughs> ndax Sénégal mën naa am yaakaar ak Adama Diatta bokk ci ñi nga xam ne euh, dinañu am raaya foofu. waaw waaw bu baax a baax a baax waaye loolu yëpp aussi bu ñu fàttaliku ni euh, tàggal xeetu tàggal yaram boo xamee ni nit ki moo koy defal boppam donc moom moo ci war a def joma ab fulla ak fayda comme que am na bourse ba pare defe naa ni li ci des moom moom moo koy mottali boppam <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax nga yor kàddu CNG Adama Bopp jërëjëf